<laughs> gars yi nee na ma Thioune Boutique day retaan par doog appel léegi kon damay ree doog appel gars yi kontaan naa ci abonné ak sem yi gars yi Alaaji Mbay laa yow Alaaji Mbay mais wax ne gars yi xoolal dugg leen fii ngeen dem abonné sama compte YouTube bu bees bi fay seetaan eggale bi dugg leen fii doole foofu ngeen teg seen loxo rek ngeen sama compte YouTube bu bees bi ngeen dem seetaan foofu eggale bi Alaaji Mbay laa yow Alaaji Mbay di wax gars yi kontaan naa ci abonné yi ak sem yi gars yi te fan yi ci affaire Baye Fall yi laa leen di jaar xoolal barke sëñ Fall li ci ay artiste na gars yi da ngay réew bëgg dee dem leen rek su lay moom laa may appel su lay jaaj. salaamaaleykum. salaamaaleykum na nga def sëñ bi. ah maaleykum salaam. Euh, Alaaji Mbay laa soxloon. Alaaji Mbay waaw maa na Baye mi yor euh, mi jaay parking nekkoon euh, côté usine xorom. Baye Laat. waaw waaw. yaa ngi si jàmm baax. waaw ma ne Alaaji Mbay damaa bëggoon ku defal benn vidéo rek. waaw. pour lan noonu. Euh, xam nga man euh, maa doon jaay foofu mais oto yi mais sama parking ñetti garab yi nekkoon foofu. waaw ñetti garab yi Baye Fall yi dañ ko dagg. waaw waaw léegi nag ma bëggoon comme que yow doo waxee nii ñi dana la dégg. Hmm. nga wax ma ñaata laa lay fay nga defal ma ci vidéo ñaawlul ma ko daal. Eh, ma defal la vidéo ñaawlul yi def. dama ne. waaw xaw ma du ma waxee duñ ma dégg. waaw léegi yooyu noonu fi laa daan gaari oto yi dañ koo yàq. waaw léegi dama bëggoon nga ay tur ay tur lañ quoi benn rawatina benn am naa benn waay sax xaw ma xaw maam Cheikh Baye Fall lañ ko wax Mbacke la dëkk. <laughs> ay Baye Jili Mbaye ak ñëpp laa hmm. waaw. wa dama ne mom ngay jital mom ngay jital tudd turam. am Cheikh Baye Fall. waaw. nga dëkk bakke waaw. tam njool ni waaw kay te am ponkal te dol dam te ponkal te am la ilaha illa anta sama jaali bi mu yokk maanaam yow xanaa seetaanoo ngóor si. kan la nu mu tuddati. noobul la def xanaa gisoo non non man man seetaanuma yooyu sax man kay du tiktok ah, na ma ci la ilaha illallah man sëñ bi damaa ñamoon kaso ñam ay liir parce que sëriñ Fallou Mbacke. léegi yow maanaam askanu murid bu la defal ndànk dama lay wax askanu murid. Hmm. xam nga ti yi jaxasuma ak ñoom ak ñeseen yeeg yooyu waaye murid yi moom maa ci gën a maanu. léegi dama am ñaar dama ñaar lay wax man dama lay wax man damaa duggoolu sama yoon ba dugg kaso ñaari at yoo xam ne dugg duggalu sama yoon néew dong nga ma ci dugaloon. Hmm. ñaari ba bàyyi faali ndiwlu sëñ bi lañu jëfee fi nekk nga xam ne ray la bu la rayee perte ngay def ab torop nga yem perte ngay def ab torop nga yem seetaan naa nguur si neen ko def dem nen taale otom bi te yàlla ko dimbali bu doon police yi dañ koy rey mm. nga bëgg ma ma defal la vidéo naa la def du yoon ak nangam nangam karang karang ah non non mais nga wax ko man kay la man kay ko nga man ñamoon naa kafe ñam naay dir. waaw léegi léegi léegi daaw léegi ban ban fa laa la ko yónnee ci numéro bi. fenn boo ma ko yónnee fenn da nga perte parce man maa ngi Dakar sax man te lu may yónnee maa ngi. <laughs> gars yi daf leen ko tuuti bi barki alxuraanu kenn artiste comédien boo leen yaakaar rek woo naa ko mais gars yi non bàyyi maa leen nag dañoo a fi ne de yéen a fi ne. <laughs>